jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru marax yeeg ponk ya ca gën a fës jaaduwul nag ñuy dàq élection yi ba atum 2021 ki ni gisee ma Diop Diop la nekk maire bu Grand Yoff nee na loolu nag teguñu ko ci yoon benn yoon Ousseynou Kassé bu APR moom nag nee na dàq googe daal mu ngi tukkee ci dialogue national bi nga xamante ne amaloon nañ ko dialogue politique bi ndax dañoo gis ni ab déggoo lu ñu def ci wàllu woowee gàmm gi nag ëllëg ci aseer ji lañu ko fas yéene rek rek kon màggal muy guddi googu euh, ñu jagleel nag ngën gi mindeef euh, di yonentu yàlla Muhammad ci aser ji lay doon euh, ni ñu ko waxee nag ñu koy waajal bu baax a baax fii ci ndakaaru ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy taalibe yi ñu ngay dëkk yu sell ya waaye ñi ngi ñaax daal chauffeur si ñu def seen kéem lay kàttan daw ndànk ci tali bi ca Medina Baye it ñu ngi ko fay waajal bu baax a baax waaye foofu la ñu seetlu rek mooy ay gaal daal ñooy bàyyi ko fu ne fu ca mel ni ñoo jox faya ko ak fa ñu naan Ndirnda ngir wutali rek kon. Kaolack googee ñu fay am amal gàmm it uh, at mu ne ñu ne nag loole du nen ndax bu ñu xoolee ay jaar-jaar la ay nit nag di ab abbaay gaal ngir wutali ci gàmm gi mbokki ponk yaa ngi nii nees tuut ñu yaatal xibaar yi balaa ñuy yaatal nag dañuy yegg ba tiwaawoon ci dëkk bu sell boobee soxna Faty ni mu ko baaxoo di def moom it euh, noppi ne rek ngir dikk ak yéen euh, ci xibaaru euh, gàmm gi ci yaatal Faty maa ngi lay nuyu bu baax a baax. Fatou Kiné Deme maa ngi lay fay nuyu téléspectateur yu télévision Futur Média xibaaru marax yi ci dëkku Seydi Hadj Malick ak ponk yi ci gën fës benn doomu aadama euh, ñàkk bakkanam ci fukki accident ak ñaar lool nag euh, brigade nationale des sapp pompiers euh, ñoom ñoo ko amal nag ñoom ci kanam tuuti daañu faram fàccee waay itam daañu wax ak waa service d'hygiène yi nga xam ne teg nañ loxo téeméeri kilo yi produit yoo xam ne daal baaxut bu nu sukkandikoo ci kiy toppatoo wàllu woowu ibbi eh, seen i gët eh, ci mbir mi grande mosquée eh, bu Tivaouane mu nekkaat ci ab chantier tabax bi nag ay ati ati ngi ñu koy amal waaye la ñu bëgg rek mooy taalibe yi ku ne sob cab loxoom ñu gën koo gaaw àggali ko ñu wax rek ci itam diggante bi dox kër dinay rawatina Tivaouane ak Touba Cheikh Abdou Bali le khalife général des Mourides yabal mu ànd ak ab délégation ñëw mooy ñaari Euh, dëkku diina yooyu bokk benn maam euh, bu nu àndee rek loolu day lu am solo ci réew mi sëriñ Pape Malick si itam yore kàddu sëriñ Babacar si Mansour euh, kaddu yu mel noonu itam la yëkkati jëmale ko ci ñaari dëkk yooyu Euh, Fatou Kiné Deme li mooy ponk yi fi gën a fës ak ay simili néew ma dellu si yaatal jataay ma ngoog ni nga ko waxee ci kanam tuuti da nga dikk yow it euh, yaatal euh, xibaar yi foofee ca Tiwaawan ni ñu ko waxee woon ci ndoxteel li xel nag mënta nangu ñuy dàq rek woteeg faluk gox goxaan yóbbu ko ba mars atum 2021 teguñu ko ci yoon ma Diop Diop maire bu Grand Yoff moo ni gisee kii di Ousseynou kasi nag bu APR ne dàq googee dañu ko teg rek ci loo xamante dafa tukkee euh, ci dialogue politique gi euh, ñu ànd ci ak Pape Fara Gningue gi ñu dàq élection départementale ak municipale fii ak atum 2021 nekkul yoon te tamit teguwul ci yoon maire bu Grand Yoff moo leen li nu mel Madiop Diop jàpp ne jaay doole la te benn maire jotul këyit ne yokk nañ sa mandat. li taxoon nit ñi fan la 5 yi jeex na gàcce la nga toog di continuer ba pare continuer continuer sax amul benn këyit bu lay firndeel da nga war a continuer te yaa ngi fay salaire di suñu ay mandat di signé ay ay ay ay ay ay engagement conseil municipal bi di délibéré sur quelle base doon xeex pour réew mi soppee ñu ñoo ko war a njëkk xeex di ko bañal suñu bopp même fekkee suñu la dal dañ ko war a bañ mooy li situation bi nekk nii du dëgg du yoon waru ñu yokk mandat yi maire yi parce que suñu mandat jeex na dañoo war dem élection population bi tànn ku leen neex ñu tegaat ko fi li nu mel du guléet ci Sénégal Ousseynou kase di rafetlu déggoo bi nga xam ne am na jóge ci dialogue politique bi depuis 1984 amul benn élection locale boo xamante ne nii maanaam dàquñu ko xanaa yu mille 2014 rek la la ñu lañu lañu la ñu ko kii woon xëy na loolu nekkul règle bi xamante ne waruñu ko fàtte opposition bi si boppam bokkoon nañ si waxtaan yi nga xam ne moo ñu indi si lii dafa fekk ne nag lépp loo gis dafay am fu mu war a jaar ba nga xamante ne nii yoon da koy da day tegu si yoon jaar aw bu ñu profité woon rek dem si ay élection mën nañoo mun nañoo wax sax ne après élection yi dañ ko def nii dañ ko def na leen dañ ko def ne la ñu amal élection ci deux mille vingt wala deux mille ak organisation bi. ñaari camp yi ba léegi déggoo ci. loolu juin deux mille vingt euh, ak deux mille vingt et un presque li siy dox du bari ndaxte société civile bi xëy na dafay wax namu teefam waaye itam administration bi ak nguur gi nga xam ne ñooy organiser am na noo xamante ne nii gafaka réew mi. daf koy laaj ak nu muy doxe ak yooyu donc y a plusieurs paramètres yoo xam ne dañ ko war a dugal ci biir. xam lu tax may foog ne 2020 moom juin 2020 mënatul nekk. wala boog parce que ñëpp xam nañ ne 6 mois avant élection kenn amul droit laal code électoral. fii ba mois de mai waxtaan xaj na fi révision xaj na fi lépp xaj na fi. mais pourquoi 2021. ñu jàppoon ko benn fan ci weeru décembre atum 2019. dàq ki nga xam ne dàq nañ ko élection yu jëm ci wàllu goog goxaan yi li nu mel nag divisé na classe politique waaye maire bu ko jóge ñu ngi artu ne ay délégation spéciale yoo xam ne duñ koo ciblé duñ ko nangu ñu wax ci wàllu njàng mi fële ca département bu pikin ñu ne ay jànkoon ay jafe-jafe nag euh, moo fa am ndax ñàkku euh, table banc moo waral sax ndongo yi daal ca daara ya xool fi mu ne euh, ñetti ñetti nag la ñuy toog mairie ba nag ma nga cay rek dalal xel yi rawatina kon ñetteelu adjoint au maire ba ñu gën ko xam ci Matar Diop di ñetteelu adjoint ba nee na nag du yàgg dara daal dinañ fexe rek ba taxaw ci jafe-jafe boobu ñu teewlu ko ci micro Salif Sow ak Asmalik Diop. table banc yi wax naa ne chaque année dinañu génnee lu mot mille et quelques table banc ñuy jox au C au CM et lycée du département nga xam ne c'est du ressort de la compétence de la ville loolu chaque année dinañ ko def xëy na ren dafa am demande bi gën a yokku mais teewul yàggul rek jël nañu un lot important jox ko au lycée Mame Yéli bajan au proviseur du lycée Mame Yéli Badiane bon je pense que su amee gab bu des peut-être que incha allah dinañ si taxaw pour mun ko mun si taxaw daal mais daal nañu wax ne. Euh, euh, euh, liggéey bi daal am na solo tey le maire Abdoulaye Timbo moo kii partenaire am Espoir Sénégal nga xam ne Nanterre lañ nekk en France ñoo ñëw tey tabax fi benn bâtiment R plus 1 nga xam ne vraiment ki valeur bi mu ngi dem ba ay million ñoo tabax ko mu am salle informatique am bibliothèque. ma ngoog fële nag ca département bu Géejawaay Wakhinane Nimzatt ñu ne nag du yàgg dara euh, dinañ fa amal rek ab jaba bu yees dinañ fexe tamit ba tabax fa benn poste de santé ak école publique ngir rek mën a dimbali ndongo ya ci wàllug njàng ma waaye tamit lu soxal ay yoon it yu ñu pavé dinañ fexe rek ba amal ko fa loolu nag ci ndimbalug nguurug Sénégal ak ki ko ca jàppale ñu teewlu Racine Talla gannaaw kàddu yoo ci ni yëkkati na ko dénk ko sunu naataango Salif Sow nguur gi ñoom ñoo ne dañuy tabaxal marché bu bees te ci territoire Daaru Rahman la ñu fekk terrain boo xam ne mën na attan marché boobu kon dina am marché dina am post de dina am école parce que mu imaginer quand même ay xale yuy jox ay sept kilomètres war a jàngi waroon nañu continuer tali bi mais Daaru Rahman ko tabaxee la dafa am ay rue yu xat biñ demee ar agéri bi ñëwee ba yëmbal arrêté léegi fii nag dañu war a saytu ñan ñoo war a jóge ci yenn fi yoon wi war a jaar pour que ñu indemniser leen jox leen ay ndàmpaay pour que ñu mën a tabax continuer tali bi ba mu dem ba ca BRT ba Racine Talla kàddu yooyu nag mu yëkkati ci bi ñuy samp rek délégué de quartier bu Daaru Rahman 4 ñu àddu nag ci gàmmu gi wax naa ko sànq ni ki aser ji lay doon nag ëllëg lay doon gàmmu googe fii ci ndakaaru ñu koy waajal bu baax a baax rawatina ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a rek yegg ca dëkk yu sell yooyee ñoom nag fi mu ne ña ngay def seen kéemtalaay kàttan waaye ña ngay ñaax it chauffeur sa ñu def seen kéemtalaay kàttan ngir mën a moytu ndiku accident yi Cheikh Diop Youssou Baro moom mile di ab italien Julio jóge ci réewam ngir rek mal fii ci Sénégal ngir màggal guddi yonent bi sallallahu alayhi wa mu nekk njëwam gu njëkk fii ci réew mi. dama ñëwoon Sénégal ngir teewe gàmmu gi sama xarit ma àndal la ci waxtaanal mu ne mën nañu dem teewul nag duma jullit waaye li nga xam ne moom moo am ci Sénégal la bëggoon ñëw xool ci. ndax foog naa ne jàmm salaam ak lépp loo xamante ni rek dañuy xeetoo moom moo ngi fi. solidarité on partage de choses et moi Wakaam doon ab site de départ fii ñi ëpp ci taalibe yi li seen ak bëgg-bëgg moom moo di daal di teewe ji gàmmu gi. ak guddib Seydina Muhammad la ñu wax ñu ñëpp moo ñu tax di dem waaw nga xam ne maam El Hadj moo ko oote ñu ñëpp fa séen si dem ñaan yàlla lépp luñ fi ñaan. yal nañ ko bokkoo ñu ñëpp ci barke Seydina Muhammad ñaan moo ñu fa yóbbu ak jaamu yàlla bu mat sëkk ndax loolu lañu suñu wasi la digal te moom lañuy def defi moom lañuy ñuy fekki jamono gàmm dem beeg dikk bi day bari lool loolee tax ñi li di artu ñi nga xam ne ñoom ñoo di chauffeur yi te bul fàttee ñi nga ñi ngay yab daf leen ni say sœur daf leen ni say rak yàlla jàmmal la ñu dem ci jàmm ak salaam ñëpp dem ci jàmm ak salaam. ay suba personnel la ñun ndànk ndànk la dañuy daw quoi dañu koy utiliser sax waroo daw bu baax topp ci circulation bi xool euh, code laabre du ma la wax nga def ko. bon ñu def ndànk rek xam ne bon lii mun ñu ko jeexal da ngay def li nga mën keneen def keneen jël wërsëgam ku nekk ku nekk jël sa wërsëg rek ñu xool li nga def def ndànk rek quoi. Tiwaawan doon benn ci bërëb yi nga xam ne nañ fa màggal guddig yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu doon itam ab guddi boo xamante ne ñi nga xam ne ñoom ñoo di taalibe yi dinañ ci faral di ci amal ay ñaan gàmm gi ñu koy waajal tamit bu baax ah, fële ca Medina bàyyi ca ah, Kaolack ah, fafe nag ñu nemmeeku nii ay gaal daal ñoo fa daal di ñëw rek ngir indi nag kon taalibe yi lu toll ci ñaar fukki gaal la ña nga bàyyeekoo nag fa ñu naan ñoo jox faye ko Ndirnda jàpp nag fépp ca département bu Foundiougne ñu ne nag duguleet daal ñuy amal lu ni mel nañ jàpp ni loolee sax booy xool ak taarix la du ñàkk nag ñu dellusiwaat ci eh, ci eh, suñu yeneen jotaayu eh, xibaar ñu des ba tey. ca Kaolack ak uh, kër docteur boobu nga xamante ni fi mu ne nii uh, matuwaay yëpp nag jël nañ ko ngir rek uh, mën a dalal ñi nga xamante ne nii dañuy am ay jafe-jafe moo xam askan ba moo xam accident bu amee ca gàmmu ga ñu dooleel nag jumtukaay waaye tamit dooleel personnel ba ñu teewloo Xadijatu Sarke bi moo jiitee kër docteur bu Kaolack ci micro Ibrahima Diamé. jël ñaari fan avant mooy tey nga commencé ba le ñaari fan après. nga xam ni pèlerins yi dañ leen di jël en charge gratuitement loolu aussi jël nañ disposition yi jël ca division finance ca facturation ba yooyu yëpp jël nañ disposition yi gàmmuwaat bi aussi fàttewuñ ko parce que événement la fii si Kaolack ba nga xam ni gàmmuwaat bi aussi disposition yooyu ñu jël moom la ñuy door def ci bisu gàmmuwaat bi pour prise en charge bi disposition yi ak réquisition maanaam spécialistes yi nekk hôpital yëpp kenn du génn kaw Kaolack pour bu safaan amee ñu mën a taxaw ñaanu ñaanuñu yàlla yóbbu kenn dakaar mais su manee nekk su waree nekk aussi dinañ ko def ci gën gaa rafetu anim dañuy demander courage mu ñu en brancard et en ressources humaines si c'est nécessaire ñoom maa ngi gërëm aussi le colonel euh, Kane du camp militaire parce que moom tamit daf ñuy jàppale en matériel en dispositif ba nga xam ni plan blanc bi dañ koy teg sous le coude dañ koy ngegenaayoo parce que bu dee afflux massif dafa am essai yi dootul doy il faut ñu dérouler plan blanc bi nga xam ne hôpital testé woon na ko mën nga ko xibaar yi moom nar na képp fii ci euh, ndakaaru ñu yegg ba Tiwaawan fekk ji fa Fati euh, soxna Fati euh, ma bàyyi la rek yow it nga daal di mm. dikk ak askan wi ci xibaaru gàmmu gi Fatou ne dem sant la gërëm la naka noonu jaajëfal mbokku téléspectateurs yu télévision Futur Média ci aljumal ji ak euh, xibaar yi aju ci dëkku Seydi Hadji Malick benn doomaadama moo ñàkk bakkanam euh, ci fukki accident ak euh, ñaar ci dem beek dikk bi loolu nag brigade nationale bu sapeur pompier moo ko xamle ñoom nag dañ ci ànd ak Alhassane moo ak Modou Diop ñu indi ci ay leeral. ñu ngi wéyal seeni opération. ci waxtu yi nag jàpp nañ ne fukk ak ñaari accident lañu ñu benn nit kese moo ci ñàkk bakkanam ñu commencé depuis euh, ñu installé wu le mercredi ñi ngi toll actuellement ci douze maanaam fukk ak ñaar yoo xam ne dañ ko génn ci accident de la circulation te ci biir boobu loolu noonu liñ ci am ci ay victimes mi ngi toll ci juróom fukk ak benn mais kenn rek moo ci ñàkk bakkanam yeneen yi ci des ay malade la ak ay sorties diverses mais bi ñu installé woo mercredi ba léegi si dafa ñu ngi génn gum euh, cinq fois maanaam fanweeri yoon ak juróom ci biir fanweeri yoon yooyu juróom ñu ngi ci am ay victimes juróom fukk ak juróom-ñett ci juróom fukk ak juróom-ñett yooyu kenn moo ci ñàkk bakkanam bilan bi ñu jàpp ni moo tane buñ ko méngaleeg bilan at bi weesu ci waxtu yi nag. ñu ngi toll ci vingt euh, vingt deux douze du moins alors que daaw waxtu bi ñu ngi tolloon ci vingt deux maanaam. double bi ensuite daaw heure bi amoon ñi ngi tolloon ci trois corps sans vie te ren ñi ngi tollagum ci benn corps sans vie te sortie yi nga xam ne mooy sorti yi ñu def yëpp ci ren mi ngi toll ci trente cinq alors que fële heure bii ñi ngi tolloon ci juróom fukk ak ñett donc on peut dire que ren moo gën a favorable en tout cas pour le moment que daaw. opération yi ñu fas yéene ko wéyal axe yi nga xamante ni foofu la ñuy intervenir ñu mën ko gis. ci tableau bi. nous avons ici la gestion des axes qui sont là. sapeur pompier yi ubbi seen i kët pare rek di intervenir saa yu nga xamante ni soxla nañ leen ñu ma gën a gaawee. Alhassane baa ñu sant la gërëm la wax nag ci gendarmerie mi nga xam ne jël na lim ci ay takk der indi ko fi ci dëkk bu sell bi li ñu bëgg rek mooy fexe ba kaaraange gi euh, ñu gën koo ñoŋal commandant bu légion centre ouest mi ngi rek euh, ñaax ñi nga xam ne ñoom ñooy taalibe ñëw ci dëkk bi ñu jaare euh, autoroute Ila Touba ndax dem beek dikk bi gën a gaaw colonel Cheikh Sarr ak Chérif Dia. ren général bi mobilisé na lu mat junni ci ay gendarme lu mat téeméer ak lu topp ci ay oto ak ay moto fanweeri moto ak juróom ak ñaari fafal naaw yoo xam ne ñoo ñuy wax fu xat ak fu yaatu ñu mën a dem ci jàmm dellu ci jàmm. démb ci huit ba léegi benn accident la ñu enregistré fii ci biir Tivaouane nga xam ne benn oto sapeur moo dajeek saxaar gi mu am ñaari blessé kon ñu touché du bois di ñaan nit ñi ñu def ndànk dal ndànk. Euh, yoonu Thiès euh, Tivaouane bi day xat 20 kilomètres yooyu maa ngi leen di invité ñi nekk jógee dakaar bu ñu mënee emprunté Ila Touba euh, moo gën a yaatu xëy na moo gën a xëcc quelques 20 kilomètres mais dinañ ñëw ci jàmm yoon yooyu yëpp daal muy national numéro 8 bi nga xam ne moo jógee bayaax dem Mboro jógee Mboro ñëw Tivaouane ak départemental 702 bi nga xam ne moo jóge fële ci Touba Toul ñëw Tivaouane yoon yooyu yëpp foo ci dem di ngi fekk ay matuwaay ak ay gendarme yu leen di wan leen guider pour ñu ñëw ci jàmm gàmmu ci si jàmm dellu ci si jàmm ak seen njaboot. aywa ñu wax ci waa service d'hygiène ne ñu teg nañ loxo lu toll ci téeméeri kilo ci ay